tey jii si kaw la commencé parce que boo amee un président de la république boo xam ne aujourd'hui politique am tey jii moo di jamaa bu ñu gën a am bu gën a mag jamaa bu gën a mag Sénégal ak pétrole bi gën a mag Sénégal lan la mooy football. ndax tey jii li football di génnee tey jii football rek moom li mu génnee tey ji à part Brésil toog na Sénégal moo ëpp li muy joxe joueur en Europe donc pour te dire que ni président de la République ñëw. Euh, def ay moyens yu am solo ndax gagner aussi c'est les moyens l'organisation et les moyens parce que mën nu nekk champion d'Afrique ah CHAN moins de 17 sourds et muets et beach soccer te loolu ay moyens leen la at organisation président bi jël moyens yëpp ba pare toog waxtaan ak monde football yëpp ni leen dama bëgg léegi ay résultats yaa ngi ko avant ñu dem Coupe d'Afrique dafa ñu bii pas bëgguma final dama bëgg bu ngeen ñëw ngeen indi coupe bi te ngeen bàyyi lion de la teranga teranga bi ngeen bàyyi ko bu ngeen bu demee ba ñëw ngeen jëlaat ko mhm. dama bëgg des lions ki yu di dem di fàdd di lakk di rey di lekk et ñu nit ñu jàpp ci te li mu waxoon mooy dëgg dafa ne c'est la première fois laa la wax amul benn équipe benn président de la république bu gagné coupe d'Afrique par décret ñun rek ñoo ko fi def dem leen ngeen jëli dellu si on l'a fait ñu pare foofu ñu koy gërëm si lépp lu muy def pour le sport sénégalais aussi ça il faut le il faut ñu pare foofu moom si ñi moom gën jubaloo ak président Augustin Senghor si la bokk. président la république le président de la république. lan la la wax. ndax si nga bokk demal nga jàpp leneen pour la nation man dinaa waxante kilifa gi ko ku mel ne Augustin Senghor ngeen waxtaan et bu ma ko ñaanee aussi président Augustin wooma ni ma dem bëgg ñu liggéey et pour le bien du Sénégal mun ma ko bañal et je le remercie devant tout le monde ndax gagné mooy mbooloo gagné mooy jàppandoo. gañe mbooy ñëpp nekk benn bokk ndey bee ko bàyyi te muy dëgg tamit si ñoom